rejoindre les rangs. Mm. Allez, dem. Allez, oui, Allez, allez Allez, Ali Ali waaw Comment naka nga comprendre groupe parlementaire ces députés, dit tout mal ce candidat corrupteur groupe parlementaire Benno Bokk Yakar. déposer mm-hmm. déposé proposition de loi assemblée nationale. absolument mm-hmm. pour ñu une commission d'enquête, mm-hmm. parce que dañu ni il faut corrompre le conseil constitutionnel. parce que corruption on y yow ce candidat. corruption passive ak euh, active. waaw foofu la foofu la bagage yaa ngi problème xel nanguwu loolu <laughs> mais man bëggoon naa nga wax ma naka la mën a tóojalee ki nga xam ne moo di président bu bees bi <laughs> su ko defee nga ñëwal ma ci wàllum insécurité bi. gàllankoor gis euh, institution dafa am lu muy fonctionner par mm-hmm. exemple fu mel ne armée wala gendarmerie. Mm-hmm. dafa am loo xamante ne euh, li ñuy wax les honneurs. Mm-hmm. comment rendre les honneurs honneurs mm. yooyu dañ ko def par degré mm. ki Qui a fort ci ko a rendre les honneurs c'est le président de la république et le chef suprême des armées mm. armée honneur moo jiitu ci lépp et rendre les honneurs sali boobu ci la bokk tey ji jomaay drapeau bi ci la bokk drapeau bi ci la bokk surtout gis nga drapeau mom amna lo loo xamante ne particularité bu ko jagleel lo xamné ci Sénégal ba mu daj pour te dire président jomaay fimné ni du jomaay non non d'autres jomaay. am naa D'autres beneen parenthèse. surtout dootul la ñuy après ñu door mm-hmm. moom dong la ñuy may drapeau boobu nga xam dañ koy sëggal ba mel luy laal suuf te du laal suuf. mu mm-hmm. ñëw bu jub ñu rëkkal ko musique hymne national. Mm-hmm. rëkkal ko ko mu ñëw bu jub xaw a sëggal bopp bi taxaw ci karamu drapeau drapeau boobu gendarmerie il est en devant devant de la scène euh, devant de la troupe.

tey ji dañuy def jomaay D. BDF BDF lay am. Basirou DF. Mm. bi M. S S la woon Macky Sall. Mm. Ah, léegi dañ koy dindi. dañ koy dindi dañuy wàccee boobu. ñawal ko boo xam ne moom moo koy moom. santam moo ci nekk ak turam. loolu it président bi la moom dong koy moom. Mm-hmm. oto boo xamante ne day boo ci duggee am sa sikkim. toog def nii war na mm-hmm. jege protocole. war de moom boo duggee du toog nii <laughs> dañ koy jàngal tamit. Mm-hmm. boo demee ba jub ko ba nga xam ne def na demi tour. Mm-hmm. jàkkaarloog moom di ko saluer ne ko capitaine diw diw diw. rendant les honneurs à vos ordres le président de la république. est-ce que. c'est-à-dire que ñu nii saluer ko. jamaay xool ko ne ko repos. am na solo continuer lool dañ ko koy jàngal ci protocole bi. danañ ko jàngal it fi muy taxawee limite de salut. bu doxee ba nga xam ne fa mu war a taxaw jàkkaarloog drapeau bi loolu protocole bi dinañ ko ko jàngal danañ ko jàngal sax ba jàngal ko style de marche bi parce que Diomaye tamit président de la république le buñuy dox di déglu rythme bobu mais mais l'heure dafay mel mel ni kuy nekk pas. l'heure est grave est-ce que dina mëna am temps. bu jàng parce que am dana ko am gars ils sont ah, professionnels. mais mais buñ ko defoon buñu ñu élection yi le 25 février dinañ am temps bu large pour jàngal ko yooyu mais ni ni gis nga président bi suy dox. yow da nga xam ci la mu nekk fu mu nekk nii. Mhm. xoolal buy dox mënuma ko xam nak wax dëgg yàlla buy dox nii. Mhm. ànd ak gàngoor gee ministre yi war ko kërën kërën. Mhm. Euh, chef d'état-major bi dal ko fi au commandant de la gendarmerie Diomaye jiitu ñu koy dalal danañ ko jàng rythme bi muy demee. dëng c'est le pied gauche dëng c'est le pied droit muy dox ndànk nag bu boobaa démarche mooy ngir président buy dox nga mel ne mel na koy jàpp noonu. maaj bi maaj boobu nga xam ne Macky Sall bu ko daan def day mel ne da ngay defal mbër moomu di jox tuuti. ah déedéet alors am dégagement. Eh, eh. ne nii bu jëlee jomaay tamit noonu la koy doxee. da gis mu génnee poitrine bi. xaw a am dënn bi xam nga ak barbe bi di dox ndànk ak dënn bi nag danañ ko koo jàngal ne ko président de la république booy dox léegi da ak sa dënn bi tuuti avec les épaules évancé ko parce que di waaw tapis rouge baa ngi ah yaay yaay waay waay tapis baa ngi gis nga fi Macky taxaw ne mhm. di xool gaañi mhm. ñu yëkkati ko gis nga drapeau bi ne ci angle mhm. bu ñëwee ba jub ko ko dañ ko koy sëgalal bu kenn du ci jaar moo tax ñu naan lalal nañ ko tapis rouge. Mm-hmm. boo dégg ñu ne lalal nañ ko tapis rouge. Mm-hmm. lii moo tax. mais mm-hmm. ci ci kii bi moom. ma ñëw ci numéro oto am. plaagam. après moo mo du am un du am deux du am trois du am quatre. PR. président de la république. nguur lii ku ne neexul rek ko la koo namawul. na wala lii dafa neex moo tax boo koy perte ak a metti. waaye dafa diis nag. dafa diis. jomaay nelawul de. léegi ci drapeau bu ndaw bi waaw. bi flotté palais. Mhm. bu fa nekkee rek la fay nek nak mhm. mhm. voilà loolu la bëggone wax bu fa nekkul. du fa nekk dañ koy dañ koy wàcce. dañ koy ah, su voyagé dal si le président man man su ma xam ndax président mu ngi fi mun naan voyage nak voyage wul. jaaral palais rek xol dara ndaw bu fa nekkul moy dem na. bu fa nekkee moy c'est une expression quoi. waaw ngi ci palais bi wala mi ngi Sénégal. mu ngi Sénégal mi ngi Sénégal bu fa drapeau bi nekkee. bu génné Sénégal dañ koy wàcce. ma ñëw gis nga bu waccé ci avion bi. nuyu bi ñu muy nuyu. dañ koy organiser ci rang yi par ordre de grandeur par ordre de grandeur tey ji bu doon nuyu protocole ki muy njëkk nuyu bu dee fi premier ministre bi la bu ci toppee ah le chef d'état-major général des armées le haut commandant de la gendarmerie wàcc wàcc wàcc wàcc wàcc ba dignitaire militaire yi jeex mu ñëw nag ci rang gouvernement bi ministre yi tamit dañoo foorante par degré li ci jiitu muy premier ministre moo leen jiitu mooy délégation ministre civil yi mais militaires yi aussi noonu lañ koy organiser son boobu

koo xam ne ku mën a togg lay doon loxo bu neex lay am dafa saf ay maître d'hôtel la ñuy. ay maître maître d'hôtel. dinañ ñëw bu ñu koy laaj la ban plat mën nga bëgg sax duñ koy eh jamaay lan lañ lay toggal jabaram doot ko wax loolu kenn mooy ñëw yor plateau bi ñëw nag. son excellence. son excellence lañ koy njëkk wax. doon na ko jamaay non non non non c'est de la discipline. ay Sidi man de gay dina ma rey. <laughs> son excellence avec votre permission quel est le plat que vous désirez pour ce soir. jomaay nit ñi. bale ngoog de xol bale baa ngi nii drapeau baa ngi. drapeau bu ndaw bi ko defee nag jomaay daal di ne. Euh, drapeau bi nen mooy wane ko defee jomaay ndey ba. Mhm. Mhm. <laughs> du ko sañ a président la ngurbaan la bëgg a def méttee ngurbaan monsieur le président avec votre entrée mu ne eh.

surtout pour doog am surtout bi nag. mais loolu du problème premier dame bi. Ah. day yóbbu ñep chaque jour. wala day des non non defal ndànk rek comme mm-hmm. normalement. Mm-hmm. euh ma mosuñu ko am pour la première fois de l'histoire du Sénégal jomaay yi mu indi dafa bëri mosuñu am président bu am ñaari jabar ay gi nak mom moy président de la république moy xol nu ngui koy organiser bokku <laughs> du suñu problème état la ñu séq ak moom mais foyer mom moko gérer. <laughs> c'est vrai affaire daam yi tamit xam nañ na daal aaw ba mom moy premier dame. Hmm. ñaareel ba moy war nek deuxième dame. Mm-hmm. <laughs> waaw ñeneen ñi doog ñëw aussi simple que ça. léegi nan la kan mooy doon kañ la ñuy woowee xam nga dañu doon gis Marème Faye Sall euh, ñu naan ko première dame. Ah, mais mais elle est elle mais mais ñii ñaar lañu. bii ah. ah, mooy premier.

respect. Dakar ñuy cëralee président. Mhm. mais binduñu ko fenn moom mii militaire un général. Mhm. ñoom nee nañu jabaru général sax général. général non waxin la ça veut dire da nga koy jox cër quoi. Mhm. non du général. parce que première dame aussi du première dame cër buñ koy jox la comme cër buñ jox jabaru officier mhm. waaye dafa neex nag loolu loolu la quoi loolu kese dafa neex de c'est le cas de kii ambassades yi bon leur femme dañuy am immunité immunité bi day dem ba allergie ci euh, femme ci jabaram yi ak ci ay seen eh, famille eh, ñii ñii nag fàttali dara am na loo ma fàttali am na loo ma fàttali gis nga fii Macky Sall jël na fi décret mhm. ni léegi jabaru ambassadeurs yi dañ leen di fay cinq cent mille mhm. loolu fu mu ko teg loolu day dañ loolu fu mu ko teg mais fi amna yu bari yo xamné ne. liggéey baa fi hein ah. mm. gis nga liggéey mais tu te rends compte yow ba nopi néna na benn général dootul dem ti retraite suspendre na retraite généraux yépp légui jour prise d'armes bi euh, président Bassir Diomaye dina consacrer à des décorations dina jox dina tapal hmm. ay militaires raya té lolu xam nga ni instant bi ñu ngi nekk di ci liggéey ak moom. Mm-hmm. pour xam diw officier diw sous-officier diw. Mm-hmm. général diw et cetera et cetera et cetera. Mm-hmm. donc fi mu nekk nii SEMGA mu ngi liggéey ak moom. léegi nag moom bu génnee ci lii après. moom moom mooy nommé aux fonctions militaires. surtout. waaw mais surtout militaire. mais nag mi ngi commencé jël fonction à partir bu prêter serment. waaw xam naa loolu. moo tax ma ni bu lii yëpp passé. mooy paase foo mu mu dem ba yëpp jeex. bu lii yëpp passé. dem prêter serment. bu ba mu taxawal bu mu taxawal gouvernement ba pare parce que gouvernement bi mooy priorité. bu taxawalee gouvernement ba pare nag. Mhm. mu xool parce que ñi muy investir confiance am mu teg leen ci boppu armée boppu gendarmerie boppu police. tamisage bi boppu renseignements généraux boppu lépp lépp lépp ay nitam la fay teg. ay nitam yu parce que président doo teg ay nitu jàmbur say nit ngay teg. parce que léegi. mais da fekk nag nitam yu muy teg ñu méngoo ak li ñu leen fa tegee. non xam nga dafa am ay officiers yoo xam ne dañ leen féetale Macky Sall te c'est ça qui est dommage mmh, alors que dañu waroon a républicain mmh. xam nga Bruno Diatta moom liggéey na ak Senghor yàlla na ko yàlla yërëm il est très fort liggéey na ak Abdou Diouf le meilleur protocole de liggéey na ak Macky euh, Ablaye Wade ba Macky Sall liggéey na ak Macky Sall mmh. day nag c'est le meilleur c'est le meilleur de l'histoire du Sénégal gis nga waajooju li mu xam ci réew mii bu ko waxoon xam li ma metti rek mooy li mu ko yóbbaale. ça c'est ça le malheur. Mhm. kooku. il n'a pas préparé quelque gis nga man foofu laa foofu laa d'accord mhm. kese nit sa doom wuutu la parce que en tant que chef de protocole tu es dépositaire de beaucoup de secrets. léegi yow ki ngay mën a confier secret mooy ki ngay wóolu ki nga xam ne da nga koy tàggat dès le bas âge te sa doom rek moo la pour mu nekk buur après pour mu chef de protocole mhm. nga xam ne li mu xam yépp mu jox ko ko mu wuutu ko mhm. président bu soxlaa woo numéro euh, euh, euh, président États-Unis chef de protocole bi moo mhm.

kii mhm. c'est un monument man dama am seede yu bëri ci mom ndeysaan man mi dama am dama liggéey ak mom dama am seede yu bëri ci mom mhm. parce que bëri na jamm Sénégal yoo xam ne. Mhm. loxoom jaar na ci. liggéey na ci réew mi dé parenthèse exclusivité. affaire médecin yéen ñep dégg ngeen ko. problème la bo xamné dafa lembé won Sénégal bailleur de fonds yi. tey financement Sénégal. Nous créé créé jam entre opposition et pouvoir mhm. feu le président François Mitterrand Bruno Diatami, mi venu indi Sénégal il est venu. Mhm. Mitterrand Mitterrand. il a rencontré toute l'opposition sauf Ablaye Wade dafa parce que dafa ne won dañ ko accusé ci affaire il vient pas Ousmane Ousmane était venu à sa place Bruno mo meuna a woo Ablaye Bathily jot ko ñoom ñëpp ñu ñëw ñu tase foofu ñu am lu ñu tënk foofu moom mooy régler audience yooyu yëpp te du wax dara te dossier la boo xam ne bëri woon na coow loo xam ni moom li mu ci xam bu ko waxoon rek coow lu jeex mais du nit kuy wax nit kuy regle la donc ñoom seen nguur ñoom am na cër bu ñu ma joxoon ci suuf d'accord xëy na cër boobu Macky jox na ma ko ci suuf parce que maa ngi koy àgg fu ko kenn dul àgg kon ci wàllu gestion état pour wax la benn côté boo xam ne rek dépositaire de secret la. oui oui parce que dafa xam lépp nu mu demee. dafa xam ah, lépp li xew kon kooku tey jii doomam doomam waroon na ko former mu wutu ko. mu bàyyeel ko li mu yor parce que am na lu mu yor loo xam ne da koy yóbbaale du ko jox kenn. ko jox kenn am na solo am na solo lool damay ñëw foofu euh, gis nga laata ñoo ñëw ci pàcc bu mujj bi waaw mhm. présidence mhm. Euh, dafa am benn mythe bu fa nekk boo xam ne boo fa liggéeyul rek mënoo ko xam mhm. c'est un milieu bu doy waar du milieu boo ñuy utee xaalis d'ailleurs sax ñu fay liggéey dañu am problème xaalis man mën naa jël sama bopp exemple tey mën naa ci wax exclusivité bi man yenn naag roi du Maroc ba ngoon journée yep maa ngi moom ñu ngi nekk maa ngi ci salle de bain bi di kenn di dem ak ñew di dem ak may waxtaan ak mom lu mais bima ma j'avais des problèmes de carburant. de 5000 francs un ami bu ñuy wax Aline Fall moo may cinq francs ma def ko sama auto def gasoil ñew te maag roi du Maroc ñoo yendu am ñu fa nek ño xamne def nañ fa 20 ans man def naa fa 14 ans. Mhm. ma ngi nekkoon ci ben service bu ñuy wax intendant des palais. ci ban ki la bonne gouvernance ci Macky Sall mi bien mhm. sûr. ah d'accord yàggul 2019 laa fa génn. Euh, li ngay xam day bëri mën nañuy kaf mën nañu mais am na ci mbóot yoo xam ne. Mhm. dee rek mooy tax. du guen du mës guen génn. Mhm. moo tax am fa poste yo xamante ku ñew fa nga leen fekk kuy dem fa nga leen bayyi bàyyi ñooñu dañ leen xol comme ni am nga nak indi sa quelque personnel mais ñoñu ku ñew fa nga leen fekk ku ñu dem fa nga bayyi amna bàyyi am na ba légui ña nga fa. Abdou Diouf ba légui ña nga fa foofu rek la xam. mën nga fa lekk tamit 5 ans do jox président sax loxo wala doo ko sax gis. te yaa ngi ci biir palais bi. am na ñoo xam ne 31 euh, euh, décembre 31 décembre la ñuy gis président de la mooy bi ñuy def passation de kii bi euh, arbre de Noël bi. Mm-hmm. ak remise de joie meilleur vœux bi. Mm-hmm. ci nga koy gis. bon foofu benn benn atmosphère la boo xam ne boo une fois que nga dugg fa il faut que nit ñi comprendre la. Mm-hmm tey Diomaye moomatul boppam. le président président son excellence Diomaye.